ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli juróom-benneelu buntu ci alburda burdatul madix buntu bi nag mooy buntu bi gën a tedd ci xasida ji xam nga lu tax wax yàlla la ci tagg mi ngay tagg yonantu sallallahu alayhi wa ci alquran te wax yàlla nag meloo yàlla te meloo yàlla yàlla moo tax yonantu mujizaat yiñ ko tuddal yëpp matuñu ko mujisa xam nga lu tax moo leen benn mujisa rek ko mat mujisa mooy mujisatul quran rek ndax alquran waxi yàlla alquran rek moo féete kaw yonent ci bépp mujisa buñ koy tuddal moo tax alquran rek mooy mujisaam kese nag waaw te dana ko wax ci biir ndax mujisa yëpp dañuy dem alquran nag du dem moom rek a fi des waaw fi sharafi alqurani alkarimi wa madxihi noonu la tuddee bunt bi nee daani wa wasfi ayatin lahu zaharat zuhura naari alqira leylan ala alamin su fekkee yaaram seen tabe dafa àggoon ci bu guddi jotee ñu taal taal ya gën ci montagne ya gën a gudd ngir kuy dox guddi soo xiifee jaar fa lekk soo réeree fekk fa ku la woon yoon nee na feeñaayu taal yooyu nga xam ne kenn mënu leen a bañ a gis nee na la ayaat yi yàlla jox yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñee daani ba ma wa wasfiya ak sama melal ayaat yoo xam ne loo ñeel na yonent yàlla muhammad ay yooyu waxarat feeñ na zuhura naaril xira comme feeñuk bernde laylan ci guddi ca kaw montagne ba gën a gudd ayaat yooyu nag mu ne fa durru yazdaadu xusnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran gayra muntazimi alquran soo boole yëpp fatiha baqara ali nga toftale ba naasi dafay gën a rafet waaye soo leen tàqale woon ni saar wu ne nefale nga tàqale aaya wu ne nefale nga tàqale baat bu ne nefale du wàññi dara ca xay ci valeur am mu ne wurusu dur soo ko noosee ci caq dafay gën a feeñal taar bi rek waaye boo tàqale woon wurus wi it bu nekk nga teg ko fële du tax dara ci ñoom wàññeeku ci valeur alxuraan a ngi noonu fa durru yasdaadu xusnan wa huwa muntazimun walaysa yanqusu qadran ghayra muntazimi waaw foo foo jël rek mu rafet foo jël rek mu baax waaye nag yàlla noosee ko ni ko noosee ngir wane leeram ngir wane taaram mu ne fama ila ma fihi min karami l axlaaqi wa chiyami ki bëgg a tagg yonantu sallallahu alayhi wa sallam bëgg a ne yéey dafa bëgg a tedd ngay jikko yi nekk ci alquran baax yi nekk ci alxuraan mu ne kooku de dana yuqulu ba sonn ba doo xam sax toqi mbaa mu damm waaye du mën a séen dëgg dëgg njobbaxtanu mbaaxaayu alquran njobbaxtanu jikkoy alxuraan maanaam yi alquran di jàngale ci valeur loolu mën nga ko wax ci yonentu sallallahu alayhi loo tagg-tagg du tax nga jot dara ci yonentu bi sallallahu alayhi ndax yàllaa ko taggal boppam mm. rawatina nag alquran ci boppam nga xam ne kàddu yàlla bu ko defee fama tafaawulu laaj la wala dafay wan ne mënta nekk te bu ci mënta nekk it loo rek lay wane ndax bu dee laaj it laaj bu weddi la mm. lu tax ayaatu xaqin min arrahmani muxdathatun qadimatun sifatu lmawsufi bil qadam bil qidami mm. laaye la yoo xam ne de ay laayey dëgg la soo leen gisee ci ay xaraf gis leen ci ay leetar ci ay baati arab nga gis ne leetar dafa sosu nga gis ne baat dafa sosu nga gis ne arab dafa sosu waaye ñoom ay ayaat lañ yoo xam ne lañuy ñuy du baat yu sosu du lettre yu sosu du kaddu yu sosu ndax kaddu kadduy ka melo naka jekk la moo tax dañoo naka jekk ndax melo yàlla lañu waaw melo yàlla lañ moo tax li ñuy gis ñun dégg nga xam nga soo ne lii mooy miir bi man ma ne lii mooy miir bi sama wax gii ma ne lii mooy miir bi dafay tegtale sa wax ji ne lii mooy miir bi maanaama sax lay tegtale waaye du sa wax ji yow mu ngoog ayaatu xaqi min arrahmani muxdathatun qadimatun sifat almawsuufi wala sifat almawsuufi bilqidami moo tax daanaka muctazila ahlu sunna seen werante ci alquran dañ ko bind ak binduñu ko hmm. soo ko xoolee ci angle boobu danga nga mën xool noo leen di dégg nga déggee ñoom ñaar ñëpp mm-hmm. waaw waaye nag alxuraan kenn bindu ko moom kenn bindu ko lam taqtarin bi zamanin wa hiya tuxbiruna an ilmaadi wa an aadin wa an irami mm-hmm. li amul jamono bu mu lëkkaloog alxuraan bu doon tey rek la fi nekk ñu nekkoon mu wax ñu lit xew tey mm-hmm. bu doon démb rek la fi nekk ñu wax ñu mu ne kon mu wax ñu rek li xew démb bu doon suba la fi nekk ñu ne wax jim ñuy wax suba ayul waaye moom lëkkaloowut ak jamono lëkkaloowut ak jamono looloo tax mu mën ñoo wax lépp lëkkaloowut ak jamono looloo tax mu mën ñoo wax lépp ndax yàlla mul démb yàlla mul tey yàlla amul suba moo tax alxuraan lëkkaloowul ak benn jamono waaye nag lu xew ci jamono yëpp wax nañu ko wax nañu anil maad li war a xew yowmal qiyaamati wax nañu wax aadin la xew ci jamono aad mooy wax nañu démb wa an iram wax nañu la xew ci jamono iram bi aadin irama dati ko yàlla waxee tabaraka wa taala ci suratul fajr daamat ladayna fa faqat kulla mujizatin min annabiyina id jaat walam tadumi dégg nga daamat ladayna sax na ci ñun moo tax fa faqat kulla mujizatin min annabi moo tax moo kawe bépp mujisa ay yonent lu tax id jaat dikk nañ ñoom mujisa yooyu walam tadumi waaye saxuñu liñ lay wax ci mujisa Seydina Muusa yépp da nga koy gëm ndax wax na ko waaye mënoo ci teg sa bët naka noonu mucjisa yi yonent yi yëpp alayhim salaatu wasalaam ba ci seen téere yi torpillé nañ leen waaw torpillé nañ seen nit ñi yu xarrifuuna al-kalima an mawaadiihi alquran nag moom mooy téere boo xam ne fukki maas ak ñeent jàpp fukki maas ak juróom mi ngi fi benn xaraf kenn mënu ko ci changé inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun moo tax moo kawe mucjisa yëpp ndax mucjisa yëpp dem nañ moom rek a fi des moo tax ma ne la sànq moom rek ay mujisa yonent ndax yonent mujisaam yu bari yi kaar yëpp dañ leen di gëm waaye mënuñ ci teg bët nag tey alquran nag mi ngi muhakkamaatun fa ma tubqiina min shubahin li di shiqaaqin wa ma tabghiina min xakamin maanaam dañ leen a xarañe yàlla leen xarañe aaya yi ci alquran ba amul problème bu ñuy teg ci kanam alquran te du ko atte te du ko résoudre te du ko résoudre hmm. waaw amul problème bu ñuy teg ci kanam alxuraan te du ko résoudre hmm. waaw ba nag moom kenn mënu ko atte parce que problème nekku ci moo tax wa ma tabghina min hakam hmm. wa ma tabghina min mooy atte lépp te kenn du ko atte te leen du ko atte mooy atte ñëpp waaw ndax waxi yàlla subhanahu wa taala maa xuribat qat illa aada min aada al aadi ilayha doo fekk fu ñuy xaree alxuraan di ko xeex te fekk ka koy xare ak da ko xeex dafay wut dëgg lu mu noonoo noonoo alxuraan da fekk rek mu ñëw dégg nga su jot ci kanam alxuraan ne koy yaa wax dëgg su fekkee ne ka koy xare wutul argument wu dëgg wutul dëgg day dem ba dootul xam fu mu jëm dégg su rëyam taxee jébbalu wutit xelam ak xolam jébbalu na xam ne alquran mi kenn mënu ko daan kenn mënu ko daan hmm. maa xuribat qat illa aadamin xaramin aada al aadi ilayha mulqiya salami hmm. raddat balaagatuha daawa muaaridiha radd al gayoori yad al jaani an il xurami yad al jaani an il xurami waaw ki fiir dëgg hmm. ni moo aaree eh, njabootam ba ku fa warta dugg ba saay-saay du fa dugg nee na balaaxatu alquran noonu lay sànnee képp koo xam ne taxaw na ne dafay diingat alquran waaw moo tax ñi nga ñi waxoon ne dañuy diingat alquran bëgg ne bëgg a wax ne yonantoo ko wax te ñu gënoon a éloquent ci seen jamono ku ca nekk ba nga jéemee toppandoor alxuraan nit ñi la doon ree nit ñi dañ dañ la doon dañu xam ne li ngay wax <laughs> mu ngi noonu alxuraan dégg nga fu ne la mënee fu ne waaw foo ko xool rek mucjisa la fa foo ko xool rek bu dee ci balaaxa bi mucjisa la bu dee ci information yi muy joxe bu dee ci côté scientifique bu dee ci côté bu nee bu dee ci defar xol ak dégg nga nooyal jaam bi ba mu jox boppam yàlla taqsha'irru minhu juluudu lladina yaxshawna rabbahum waaw xam nga di nga dégg kàddu mu neex di nga dégg kàddu mu nangam waaye est-ce que sa xol dana ca nooyee sa der nooyee ca ba nga nga nga jëm ci tudd yàlla waaw di nga déglu musique mu neex mais sa xel ci leneen lay ne alquran nag dafaa neex ba pare di la yóbbu ci yàlla mu ne laha maan kawajil baxri fi madatin wa fawqa jawharihi fi lxusni walqiyam da ca nekk ci maanaa nag nee na boo leen bëggoon a wàññi mi ngi mel ni nga bëgg a wàññi duusi géej ah géej nañu toll ci ci ci ci ci nam Mhm. dégg nga douche yooyu ca nekk ya nekk ci géej gi nañu toll nga ne dama tey jii daal dama bëgg a wàññi douche mhm. yi mën nga tudd dund téeméeri milliards yi at doo mën mhm. mu ne alxuraan noonu la maa nii mel saa yoo jàngee rek gis maanaamu mu bees génération bu ñëw dégg ca la ca ña jiitu woon dégguloon waaw ah, jamono bu ñëw révélé ci alxuraan lu ñu xamuloon waxoo ko jawharihi fil husni wal qiyam bu dee nag ci wàllu valeur nee na valeur alquran bu bu bu bu maanaaye bëree ni duusi géej it valeur ba moom kawee na wurus ak jama ak ya dégg nga wurus ya nga xam ne ñoo ne ci géej waaw bu fawqa jawharihi kawee na wurusu géej fil xusni ji taar wal qiyam ak valeur ak valeur ak valeur maanaam niroleeg géej gi nirole niroleeg jegele la léeg jegele la niru léeg jegele waaye alxuraan du moroomu géej maanaa ya du moroomi géej dégg nga xiima ga noonu du moroomi warusu géej waaw nee na fa ma tuaddu wala tuxsa ajaibuha wala tusaamu ala likaari bisaami fa ma tuaddu wala tuxsa ajaibuha nee na kéemaani alxuraan kenn mënu koo lim kenn mënu koo takk kenn mënul lim kéemaani yi ne ci alxuraan kenn mënul lim takk kéemaan yi nekk ci alquran wala tusaamu ala likhaari wa saami téere boo jàng ñaari yoon ñetti yoon ba moytul mu sàppi la alquran nag doo jàng mukk mm-hmm. ba toqi doo jàng mukk ba mu so ba mu ba mu sàppi la mm-hmm. noo gën a jàngee dégg nga mu gën a neex moo tax qarrat biha aynu qaariha mm-hmm. fa qultu lahu laqad wafirta bi hablillahi fa'tasim ki yàlla dimbale ba mu xam alquran ba bu koy jàng xolam sedd xolam sedd ndax la mu yëg nee na nee naa ko hey yow de jot nga ci buumug yàlla gi ngooy nga ci jot nga ci buumul yàlla gi ngooy ci bopp waaw jot nga ci buumug yàlla gi ngooy ci maanaam boo demee ba alquran dégg nga di sa yoonu sulóog te alquran rek a yoonu sulóog ah jàpp nga ci buumug yàlla gi ngooy ci bu mu la rëccati bu mu la rëccati mu ne in tatluha min xarri naari ladan atfat naara ladan shabimi borom téere bi mi la def fii waaye mi la war a mhm. na alxuraan boo koy jàng yaay seet lan lan lan lan lan lan mooy sa objectif lan mooy su fekkee ragal safara tax nga di ko jàng yow looy ragalati fay nga fay nga ko ab fa naara lawan min wér ha chib mhm. waaw nga ba nga ne bismillahi rahmaani rahim rek la safara fay mhm. <laughs> la safara fay waaw mu ne booy jàng alxuraan ngir ragal safara ba nga ne bismillahi rahmaani rahim ca la géeju alquran gu neex gi kaar dégg nga daal di sotteeku ci kaw safara te benn toq rek bu ca sotteeku woon mu fay mu fay waaw in tatluha xiifatan min xaari naari la woon at fata naara la min ridiha shibib kon nag lu lu tax nga jàng ko rek nag loolu ngay am quran loo tax lima quri am lu tax nga jàng ko rek am ko ca am ko ca bi تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم nee na alquran mu ngi mel ni déegu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ca yowmal qiyaamati moo xam xawdu kawthar la wala beneen déeg la déeg ba nga xam ne dégg nga kanam yépp a cay weexe xam nga ñi mooy yàlla ba ñu dugal leen safara buñ leen génnee seen kanam yi xam ba mel ni këriñ buñ leen dugalee ca déeg ba rek bu ñu génnee dañuy wax tal set wecc leer nañ mu ne alxuraan noonu lay mel noonu la mel waaw noonu loo tilim tilim boo ñëwee alxuraan fóot la waaw ci côté bépp nag boo ñàkkee mu fóotee la alal ba nga am boo ñaawee mu fóotee la taar ba nga rafet dégg nga boo euh, nekkee mooykatu yàlla mbaa ku dëng mu fóot la ba nga tuub ba set wecc boo soree yàlla mu jege la yàlla wakal siraati wakal misaani maadilatan wal qistu min gayri haabi nnaasi lam yaqumi alxuraan daal boo koy xool mu ngi jub kocc mel ni siraat ndax mooy siraatullahi almustaqim booy xool alxuraan mooy misaan bi nga xam ne ca la ñuy peser boo bëggee xam yaay kan ci yàlla seetal noo mel ci alxuraan waaw alquran ni siraat la mel ni misaan la wal waaye maadilatan ci màndu moom rek màndu loola tax fal qistu min gayriha fi nnaasi lam yaqumi lam yuqami wala lam yaqumi waaw hmm. fal qistu fii gayriha ci lu dul ayaati alquran yi lam yaqumi du taxaw mukk fi naasi ci ni maanaam yoon woo xam ne nit teg na ko rek pour dund ca te du alxuraan balaa suba rek nga gis ñu ne changé nañ loi sàngam balaa suba rek ñu ne abrogé nañ loi sàngam lu tax ay nit ko teg moo tax doo gisu màndu gu mët sëkk lu dul ci alxuraan lu tax ki moom nit ñi te xam nit ñi moo ko teg alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir waaw laa tacjaban li xasuudin raaxa yunkiruha tajaahulan wa huwa aynu lxaadiqi lfahimi mu ne bum la yem mukk nga fekk ku añaan koo xam ne xëyam ak ngontam yépp mooy weddi alquran te weddiwul ko ngir ne alquran du dëgg waaye daf koy réeréeréeréer lu tajaahulan ngir réer réer lu wa huwa aynul xaadiqi li fahimi moo gën a xam moo gën a ñëw moo gën a gis ne alxuraan rek ay dëgg kooku nag buum la yéem xam nga lu tax su fekkee ne xel ma dara newu ci it dafa am feebar bu ne ca xol ba bu fekkee ne gisu dégg nga bëtam dara newu ci am na gisu xol bu ne ca biir bu yàlla fat xatamallaahu ala qulubi moo tax mu ne qad tunkirul ayn daw ash-shams min ramadin wa yunkiru lfamu taama almaai min saqami waaw ki ki ki wanent mën na génn ci digg naaj bi ñëpp naan jant baa ngi mun a jant neew fi parce que bët bu wanent mënul xool jant wa yunkirul am famu wa yunkirul famu taamal maa i min saqami gémmiñ bu saccee bu feebaree loo ca def ci lekk mu lewet bu ko defee mu ne lekk gee naqadi fekk moom moo feebar hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا